mbokk yi jullit yi gannaaw ba nu sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci yenentam ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp luñ xam ak luñ xamut tey balu xaq ñépp luñ yëg ak luñ yëgut yàlla nu yàlla boole jëkkal tomb bu ñuy fàttalante mooy xew-xew bi siiw lool ci réew mi ci jamono ji ñu toll nga xam ne am na ñooñ dañ koy waaj fukki fan ak juróom-ñaar mu soog a agsi am ñu koy waajal lu ko ëpp am sax ñoo xam ne ëpp ga ci waajtaay àgg na ci buñ ko defee ba ca suba sa rek ñu tàmbali ko waajal mu jëm déwén lépp loo ca xam ne yàlla rek a tax ak jëfe ndigalu sëriñ bi ci boppam yàlla bu mu neen waaye nag saa bu dellusee waris naa delluwaat nafar nafar nag boo ko déggee mooy ku fa masoon a jaar mooy tamit tàmbalee nafar mooy bu fekkee yàlla dimbale woon na ko daaw ba mu fekkee ko ren mu jëkk a sant yàlla ndax kat kenn xamut ci ab lim ñi ko fekkee ndoo woon ak nun daaw te fekkee wuñ ko ren yàlla leen yàlla yërëm ñun ñi ko fekk it liñ fi jot a def te muy ay rëcc rëcc yàlla ñu ko yàlla jëkkal muy xew-xew boo xam ne nag li muy jaar ci làmmiñu nit di dugg ci nopp bari na lool waaye laaj bi mooy ndax nopp yooyu muy dugg ma nga cay def dara mbaa jaarul rek jàll aha kay ndax am na ci tomb yooyu daf koo làmbaale daa ànd ak moom te kenn mënu leen a tàggale waaye néew na lool ñu ko ciy limaale bu fekkee sax mi nga am mooy bis la bopp ab jàkkaarloo diggante dëgg ak caaxaan moo ca fesoon ci biir ak ci biti koo xam ne la muy wax jaaxal na pénc mam dëkkoon ëtt bam dëkk jaaxal pénc mam dëkkoon ca dëkk ba ba law ba tasaaroo ba ñeneen jot ca ñeneen ña si joxoon nag ñoom saa su nekk damay laajte ñoom lu ci doonoon seen yoon maa ngi jublu ñi doon jàpp Sëriñ Tuubaa ñi jàppoon borom Tuubaa lan lañ jote woon ak moom ñoom dañoo dugg seen gaal di taxawaalu rek ba agsi fi képp kenn xamut ci doomi Sénégal yi ñaata nit lañ rey ci seeni maam lu dul jeex ndax lan alal képp ak maamoom fii ana fu nit di moom foo xam ne jaamu yàlla suñu fa jaamu yàlla ba di fa xatal ñay wax na ñoo koy moom waaye pay gi teel naa feeñ ndax ëpp na téeméeri at moom mañ ko siqaloon tamit kenn képp ba fii mu nekk ay jeexitam a ngi fés waaye ña ko doon kalaame ak ña ko jël si woon ak ña ko doon àtte bala ngaa xam fu ñu leen suul dana jafe lool dana ca sonn dara koo xam amuñ benn jeexit wa amma ma yanfau nnaasa fa yamkusu fi l ard kadalika yadribu llahu al amthal waaye keneen kuy woote ci ludul yàlla day mel ni dax dax buñ ko génnee fañ ko denc day rafet lool neexe xool lool waaye rikk bu ko naaj wi tiim su ko naaj wi tiimee tuuti boo ñëwee dootoo xam fa mu nekkoon moo dal nag ñam ko séqaloon moo tax saa su nekk da ngay dégg ñu naan boo demee ci archive da nga ca fekk li da nga ca fekk laa waaye ñooñu mënuñu ko seere ndax ñoo ko si jële woon mëtuñ ko seere kenn du leen ko seere loo dañuy bàyyi yàlla rek mu seereel ko boppam ak moom lim ci bindal boppam waxal ko boppam rek kon ku waxtaane bis bi da nga ciy waxtaane dëgg-dëgg ragal yàlla te wéetal ko te doyloo ko waaye da nga ca waxtaane ku teg tànkam ci topp ndigali suñu borom yi waaye da nga ca waxtaane ku not bakkanam bakkan dara gënu ca fés alal ak njaboot bakkan dara gënu ca fés bakk njaboot ak alal mu xëy xëy wan ko gannaaw xamut kañ lay dellusi waat ba muy tàggoo ñu jële ko ci làmmiñu suñ fan lu mu fekke woon tey kenn rek koo xam ne fekke woon na te wax ñu dégg dane maa ngi dem bàyyi laa ne rek yàlla maa ngi dem bàyyi na leen ak yàlla wala wala bàyyi leen naa yàlla maa ngi dem loolu mooy tadxiya dëgg tadxiya boo ko déggee mooy ñàkk loo xam ne loo soxla la nga nanga koo ñàkk te yàlla tax moo tax ku ko waxtaan da nga ci waxtaane pas-pas bu dëgër te it waxtaane ci ku xam fa mu bëggoon a dem baat boobu dañ koy moytu saa su nekk dañ lay wax ay natt yu ko tego yu ko daloon rek te natt yooyu yu ko daloon liñ ci xam lu tuuti la raw na fuuf liñ ciy waxtaane ndax ab natt bu metti munta weesu koo xam ne ab tànkam bu guddee ba gudd musta dem fudut Mauritanie Mauritanie boo teggee si Sénégal boo teggee seen rajo ci Sénégal bii ndeyjoor ndeyjoor bi si Mauritanie lay nekk bii nekk càmmoñ bi nekk Sénégal booy wàññi ko safaan ba noona ay nit ñum xamut kenn sol mbubb yoo xam ne mënoo caa xàmmee kii ak kaa ñu ne ko cas jële ko ci njabootam te waxaguñ ko luñ namm ci moom lu dul jëfandikoo doole képp ak tooñ gu metti loolu tumurank mënu koo weesu boole koo nanguwuñ kenn ànd ak moom bugguñu woon kenn ànd ak moom sax ndax moom dong lay soxla woon mu ne ci ndum ci seen biir di réer rek feeñ loolu doy na sëkk ak tumaraag kon ku nutul bakkanam munut loolu waaye yooyu ma jot junj ana fuñ ci toll ñun ba saa su nekk ñu di ko waaj ana fuñ toll ci suñ diggante yàlla dëgg-dëgg ci war koo jox cër ba mu yaayoo muy ragal yàlla ana cër buñ déegoo yuñ doxagoon ci teg suñ tànk fa ko yàlla teg lu woon roy ko ca ak not suñ bakkan ak saa su nekk suñ pas-pas te xam fañ jëm diggante dëgër ak saa su nekk ñu waaj ngir def li ñuy wax tatxiya ñàkk lépp loo amoon te yàlla tax yaakaar naa buñ ci doxi soreeguñ ci de kenn ku nekk ma ngay uum uumal lam yore di bëgg lu mu ca dolli waaye bokk yi bis boobu du luñ fi fekk rek di ko def fa sori la jóge ci ay xat-xat bi ñu koy indi Tuubaa bi ko fi defe si it jubluwaay bi weesu wutoon jamono xatoon na ba fenn fu nekk nga mën faa taxaw wax ak nit ñi li nga war a wax ak ñoom yombutoon nii mu yombe ñu ne fu ñu koy wootee ñu ne nañ ko wootee fi nga xam ne ñëpp nangu nañ nga ñoo ko bokk su ko defee buñ ci ñëwee liñ leen waroon a wax ci at mi daaw ba ren ci luñ leen war a digal ñu digal leen ko su dee luñ leen war a tere ñu tere leen ko ñu tàggoo ba déwénati ak jàmm te bu ñuy gën siwaat kenn ku ci nekk fexe ba fa nga tollu woon daaw nga weesu ko ci ragal yàlla ci topp ndigal ci pas-pas bu dëgër ak not sa bakkan ci saa bu ko yàlla soxla loola buñ ca doxee itam doxagum ca lu bari de kon bu ñu dégloo sëñ bi nga xam ne mooy borom Tuubaa te gaa yi jàppoon ko yóbbu ko lim bindal boppam waxal ko boppam danañ xam ne ku sori fu mu doon jéer la jéer ci boppam daa doy ab soriwaay waaye sori fu mu doon jéer xam bu wér li mu bëggoon ndax loolee mu doon bëgg ba mu toog ci jamono bés jël xalimaam ne la ma bëggoon am naa ko ndax foofu nit ñaa ngi fay xool niruwu ko ndax bu ñu fa doon xool weesu nañ fi ñu toll bu yàgg dafa bind ci benn téeréem ak xasida goo xam ne ma ngi ko tënkee wa kaana xaqan alayna nasrul muminin waxe suñu borom suñu borom nee na yii ma jot a lim kum tax a jóg sa ndam nekkul ci sa loxo ci sama loxo la nag daf caa bind lu bari waaye bokk na ca hadamtu baatilan bi xaqin fa zahaq màbb naa caaxaan bokkaale yàlla nërmeel seytaane ana nu ma ko màbbe pas-pas alquran tegtal ma fu may teg sama tànk may feeñal ko ci sama lislaam bi xaqin mooy islaam ak alquran mooy fi yàlla di waxee ci alquran suuratul isra di ko wax ak yonent bi qul wa qul jaa alxaqu wa zahaqa albaatilu inna albaatila kaana zahuqa fa zahaq mooy mu beppiku beppiku mooy gone gu ñu waral ci fas wu suur ba munta daj fas wi suy daanu rattaxaayu yaramu fas wi day tax day barasiku ba ne day refi suuf su amul ndimbal fas wi joggi ko bu dee fas wu rabe dëgg-dëgg mooy beppiku nee na baatil mooy bokkaale suñu boroom ci pas-pas ak ci jëf màbbe naa ko alquran ak lislaam mu bepp ko te dootu jóg ci réew mi moom waaye bokk yi loolu ana lu ñu ca def ana fu ñu ko toll ba pare si na koy nafar at mu jot ba xam lu ñu ca defagun ca lay waxe ba ne wali ilaahi ka sa saqiihi dahaq fa may mujj ëllëg bi ma defee lii ba jàll mooy bu ëllëgee yàlla dana ma rembatalal rembat lu ñuy duy bu dee ceeb wala pepp wala mboq ab feesam ak feesam am na lu muy tudd waaye rembat boo ko déggee mooy ndox ak i bokkam ak paan ak leket wala ab siwoo buñ duy ba mu fees ñu ba mu ba amut ba mu tutu dem moo ram mooy ràmbat mu ne ci la ma suñu boroom di rembatale samay kaas ëllëg may naan rek saa bu gesee yàlla ñu gis ci ginnaaw kasan kasan dihaqan alquran wax na ko inna lil muttaqina mafazan xadaiqa wa anaba wa kawaaciba atraaban wa kasan dihaaqan laa yasmacuuna fiiha lagwan wala kidaaban jazaan min rabbika ataaan xisaaba am na ci beneen téeréem bu muy wax it soo déggee ay yi muy tënk téere bi rek da ngay xam ne kooka musta noppalu musta dallu amutoon fu muy noppaloo ji xanaa bi ñu ko indee Tuubaa ku uusuka tasqimi biha daa busharatin wali qutta faydan axjal al baxra wal fulka loolu mi ngi ci téeréem bu mu tuddee muqaddamatul amdaax tënk ko wa innaka la ala xuluqin azim loolu it ay wax a ngi fi waaye bu ñu déggee ba mu nekkee foo xam ne moom képp moo fa nekk wétali ko fa yàlla doyloo fa yàlla war nañu la suñu bopp ba xam ñi ngi doxam déedéet ba muy wax bayit yu may bëgg a wax waxutoon ak ma sàmba waxutoon ak ma demba waxutoon ak ngañ waxutoon ak kenn ku dul yàlla ba di ko seeree sax mbindeef suñu borom yi ndax yàlla ma wax ci alquran wa in min cheyin illa yusabixu bixamdihi walakin la tafqahuna tasbixa géej gi da la doon seereel fi mu nekk waaye seereelul géej gi yàlla la doon seereel xam na ne yàlla mi ngi fépp li yashhad li yashhad bi kawni abda man yaxfiru danba wa kawni xadima almustafa baxra ma yumba yaa baxra ma yumba yaa baxra wal yashhad fii ak géej gi nga am ba tey it sa mbokk yépp nañ seere ne man du ma raayante gan du ma raayal gannaaw mukk mushrik ku bokkut ak man pas-pas du ma raayante gannaaw moom mukk du ma ko wax lu ko neex du ma ko def ci kanamam du ma ko ko jëw du ma bëgg mu dégg ko du ma bëgg mu jox ma ko dara wala ma du ma neexal walishhad bi an bi anni la udaahinu mushrikan xalilan xabiban lilladi karrama jamba foofu it wala suñu laaj suñu bopp ba xam fu mu ci toll raayalante gannaaw moom dane du ma ko def mukk ba ba muy waxaat leneen ba ba muy ñëwaat fii waxaat li waxaat leneen lu bokkul li mu waxoon te loolu mënut a am kon la ma waxoon mooy wéy am na feneen fu muy wax ca kanam ne qad qultu waxoon na ci téeréem ne fu ma fu ngeen gisee ma ne xultu maa ko waxal sama bopp maa ne moo fa teew waaye xadd xultu waxoon naa bis bu yàgg baytan wa huwa xayru shaahidi wa laysa man samia kal mushaahidi dégg naa ko lu mu bari bari bu doon téeméeri baat la jenn gis naa ko mooy gën a wér waxoon naa bu yàgg ci aw bëy te nee na mbind lu fi sax la ne kiy dégg ak kenn gis naa ko duñ benn lam bindoon mooy xaniitu xaniitu billahi an il arbaab wa bi muhammadin an il asbaab loolu mi ngi ko waxe ci téere bu am solo boobu muy tënk jaar-jaar yi bi mu jógee Mbakke Bari ba fi mu jaar bañ jàpp ko ba yóbbu ko fenn fu nekk la mu fa wax bokk yi wéet am na ñoo xam ne bu ñu ko defee rek wax lu ñu di nettali wala ñu def ko waaye ña ko fekke woon la bëggoon lool ñu ñëw fekke ko wax lañ gis ci moom ka sant sëy ñëwoon njaareem dana nañ ko ubbil fépp te yóbbu ko ci jàkka ja te lu mu xam na ko wax lu mu ma xamal na ko wax loolu yombut de lu lu ma diw xamal na ko wax maa la xam mu ne loo xam waxal loolu ana fuñ ci toll ak moom bokk yi tarxee bi ma doon wax léegi ana kan moo waaj ba jekk ngir ñu jàpp ko yóbbu ko fu leen soob ba mu soob la ñu delloo si kan moo waaj ngir loolu boo ko du wër doo gis ñu bari de ndax da ngay dégg ñu ne njariñ loo fekk foofu reyuñ ko fa ñu baree bari bi ñu ne dégg ne jàpp nañ ko dañoo laal di jàll fa ñu jóge woon ñenn ñu réer loolu wér na lu wér la bi mu delloo ñu fekk bariwuñ de toll na jamono yoo xam ne kenn bëgg koo xam kenn bëgg ko xam ndax defe nga ne boo ne xam naa ko ñu jàppale yóbbu la moo tax ba suñu ëbbulaat Mbàkke di tànn lu ab chef de village ci Touba ay années soixante-dix bokk na ñi mu ko wax si Modou Bousso Dieng nee na ko seetal ma koo xam ne dañ na ak réer te am na reer te buñ doon rey murit yi duma murit du tee ñu raay ko bokk yi ñu bari dawoon nañ dem de am na ku suñu iblaat Mbàkke wan ay këyit yuñ laajoon ay nit lu ngeen xam ci sëñ Tuubaa ci borom Tuubaa lu ngeen xam ci moom am na ñi si gën a yomb dégg seen wax daay mooy xawma ci moom dara defe ne buñ ci xamee dara rek am na tegu ci seen kaw mu ne ak ko jaroon ndax bokk yi ku taxaw ci kaw suuf si te nekkatu fi santaane suñu borom mi ngi yàq suuf si te wallahu laa yuhibbul fasaad lii wane ak wéeroom ci suñu borom bokk na ci bayit bi may bëgg a jàng wajjahta lii itlaaqa malikin malik mustaxniyan an almuluki wassuluk day fekki laa udaahinu mu laa udaahinu mushrikan rek ndax système système rek la ku mën na ci say loxo rek soo ko soppi ba dëppale ko ak diine benn système rek la loolu mi ngi ko bind ci xasida gu ñu bari meen dañ koy jàng ka jàngaar rek mooy gimtan ki bal axyaaun inda rabbihim yurzaquuna farixiina bima aataahum allahu min fadlihi mooy bara an ilbaaqi min al amraad wa kaba man ankara bi atiraad moo tax am na lu mu wax ak ñun nee na su jamono doxee ba dox nit ñëw sama gannaaw di tedd ba yàgg mu di ma gor bëgg maa gor li ma yor ump na ko di ma jéem a gor nag mooy bañ koo defal dara ruyal ko ci dara bu ñuy fàttaliku bis bii doo ci duñ mënuñu mënuñu laa joxañ ci dara benn taxawaay bu wér loolu murid bu nekk war na ko bàyyi xel ak jullit bu nekk fa man saa kawni xadiman nabi ladaa غيابي فلم يعرف خفايا جميلتي kooku xamul lu ma ko defal yàlla na yàlla musal ci loolu loolu it mi ngi ci gisee wu sakku am na fu muy waxee it ne may gi ko suñu borom may bi ko ñu gaa yu baax yépp gisee ku nekk bëgg na ko ku ne bëgg naa am loolu hibaatu zil jalaali wal ikraam lii xalladat muraribal kiraam loolu mi ngi ko bind ci téeréem boo xam ne mi ngi ko tënke jaawartullaha bi kitaabihi ila duxuliya jannata lii ma yàlla may ku bëgg lu baax lu te dutu ko nangu mukk ku bëgg lu baax lu nekk bëgg na ko moo tax fu way nekk ci adduna bi gannaaw gannaawam di wooteel suñu boroom di ko jaare ci lislaam ñi ngi koy liggéeyal bu ko xamee ak bu ko xamul ndax daa bëggoon yaa liggéey bi tasaaroo da bëggoon fu ne mu taxaw bu woote fa kay woote nag lu mën a woote su fekkee ci lislaam la nekk na xam ne bu ko xamee bu ko xamut ñu ngi koy liggéeyal te ku bëgg a doon dara ci lislaam war naa sant yàlla dootu doon ab jullit ni ko sëñ Fallu waxee woon ci kuñ ne ko woon day seex seexlu mu ne ginnaaw day seex seexlu la war naa sant yàlla ndax dootu doon lu ab taalibe saa su ne da koy séntu day séntu ceex te mu ngi ci taalibe gi su boobaa bokk na nag ci ay mayam yu ko yàlla may topp gi ko nit ñi topp ki seen coobare loolu ci ay mayam la bokk te benn xakim nee na ku nekk nee nañ moo ko wax waaye ki ko wax mën na cee bañ a am solo waaye li mu wax moom la ñu xool mu ne maa leen di moom moo daa am fitna juddu waaye moom dañoo ñëw ne ko yaanu moom bokk yi yaanu moom jooju nag ñooñu ñëw seen bopp boroom cër yu mag lañ ci sëriñ bi ndax ci mayu suñu borom gi lañ bokk ñooñu am na lu war ci ñoom mooy bokk na ca lu bari la ndax ñoom desewuñ dara ci seen bopp suñ fa lu nee la woon ku joxe boppam desewu dara bokk yi koo xam ne ak njabootam bu dee góor ak jigéen boo ñëwee këram ku la ku fa nekk ku fa des yaa ko fa bàyyi booy dem bu dee alalam loo fa gis soo ko fa bàyyee dalaa soob kooku am na cër bu rëy boo ko war a delloo war nga ko delloo weccutam bokk na ca bis bi ñuy waajal nga xam ne ku man dem ku mënut dem am na ñuy ñëw ñoo xam ne dañuy ruusaanu ba bis bi jàll ñu woote ne ñëwoon naa waaye dama amul lu ma nuyoo ndeysaan delluwaat am na ñoo xam ne dàq nañ leen fañ daan liggéey ndax jaral na leen ko am na ñoo xam ne dañuy leb bor yu gis gan ndax lan mënuñoo ñàkk dem suñu delloo danañ toog lu yàgg duñ nelaw ndax nu ñu koy fayee waaye dañuy fay ba desal ñoom ñu nag bokk yi suñu wuysee am na luñ ja lu yey ci ñoom mooy duy leen bañ duy leen bañ fees dell ci pas-pas te bañ leen a wan adduna kese kenn gënu kenn ëppale ko woon adduna li ñu tuddee adduna kenn ëppale ko ko woon muy alal ak alal ak xeetam xeetu alal yépp dañ ko fa daan jal ba lu sa gaaw a yàqu-yàqu ndax mën naa toog biir du fa agsi bu dee lu ñuy sol noona moom day